bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim xabibi wa amali alimamu almusawwadu xalifatu haadina attaqiyu ahmadu di qasida ju siiw suñu maam bële ca daaru salaam qutubu asrihi wa faridu dahrihi mawlana alxaaji omar ndaw alfaruq moo ko bind ci sëriñam suñu sëriñ alqutubul maktum wal barzaxul maxtum wal xaatimul muhammadiyul maalum abul fayd cheikh sayidi ahmed atijani radiallahu taala an nee na xabibi wa amalil imaamul musawwadu xalifatu haadina taqiyu ahmadu xabibi sama soppe wa amaliya ak samay mébét man alxaaj Omar Ndaw al imaamu mooy limaan ji al musawwadu kada kuñ cangal yi nga xam ne xeeti càng yépp yàlla dajale na ko ci moom yàlla dajale na leen ci moom waaw xalifatu hadina ki wuutu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy aji jubal ñu ñun sallallahu alayhi wa sallam ki may wax attaqiyu mooy ilimaan ju ragal yàlla ji kan la ahmadu shah sidi ahmad atijani ko kan la mu ne mu middu li aqtaabin fuxulin bawazilin awaila turran wa awaxira ahmadu mu middun mooy aji tëbb li aqtaabin ñeel qutbu yi fuxulin ñey kuy bawasilin ñey naaga awaayila way njëkk turran ñëpp wa awaxira ak way mujj turran ñëpp ahmadu mooy cheikh sidi ahmad tijani waaw leer goo xam ne jóge na kër yàlla jaar ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci yeneen yonant yi jëm ci aqtaab yi waxuma sa xawliyaaw yi waaye aqtaab yi moo xam ya jiitu la moo xam yi mujj leer googu ci loxo Cheikh Sidi Ahmed Tijaani la ko yàlla teg mu di leen ko tëbb waaw fu xut bu ak daraja jum mën a al al al bawaasil waaw muy nirole maqaamaay xutb yu rëy yi ak kuyal gëlëm kuy ya nga xam ne ay naaga lañu nga xam ne kenn du jonganteeg ñoom ci kattan kenn du jonganteeg ñoom ci dayo xutb yooyu nag lu ñuy rëy rëy te ñu rëy lañ xamal ne seen ndollal maa ngaa jógee ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane seen mëtët waaw seen mëtët Cheikh Tidiane moo leen di dëbb wala ñu am ci njëlbeen ak ba ndollal jotee ndollal la Cheikh Tidiane la nee na wa kullu waliyin taxta aqdaami cheikhina fa in qiila ayna xatmuhum qultu ahmadu wa kullu waliyin bépp wali yu taxta aqdaami ñu ci euh, mi ngi ci suufu ay ndëgu suñu sëriñ waaw wa kullu waliin bépp wali yu taxta aqdaami mi ngi ci suufu ndëguy suñu sëriñ fa in qiila ndem laajeef na ba wax ay na xatmu muwaana seen xatmu qultu ma ne ahmadu Cheikh Tidiane la Cheikh Tidiane radiallahu anhu dafa xëy rek ne qadamaaya haatan ala raqabati kulli waliyin lillah waaw fekk booba laajte ne ay na Seydi Mouhamadul Xaali parce que am na lu mu bëgg a wane te Seydi Mouhamadul Xaali rek ko ñemee laaj waaw Seydi Mouhamadul Xaali ni ko mandi ci yàlla wala yaa ngi wuri parce que Cheikh dafa ni sama ñaari ndëkku yi ñu ngi ci joggare yi ñu ngi ci baatu képp koy wàllu yàlla mu ne ko maa ngi ci wuri wala laa xam mu fàttali ko ah, sa maam ju baax ja waxoon na ko de Sidi Abdul Qadir al Jili ko wax na ko te wax na dëgg waaye benn ndëgum la waxoon te ci la waxoon man nag ca tàmbali ba bu yàlla pencoog jaam la wax ileen naam ko fees waaw mhm. mu ne ko ah, xatal nga lu yaatu de xanaa yàlla mënta bind may beneen waliyu lu ëpp lum la may nu ko akay ah wante du ko def xanaa yàlla mënta bind may mbindeef lu ëpp lim may yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi nu ko akay ah wante yàlla du ko def yàlla mën na ko xamuloo yàlla mën na bind ku gën yonent mën na ko sallallahu alayhi wa sallam mais du ko def ah. du ko def moo tax imam Ghazali waxoon wax ju rëy ja laysa bil amki fa laysa bil imkaan abdau mimma kaan waaw ah. laysa bil imkaan abdau mimma kaan waaw ah, nee na lu gën a yéeme li weesu mënatul nekk mënatul nekk su fekkee ne borom xijaab nga da foog ne dafa lottuloo kattanu yàlla wante dafa xam ne coobare yàlla ajowut ci mu joxati lu ëpp lim jox yonantu sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul yonantu waaw ah lil waarithi maa lil mawruus ki nga xam ne nag dem na ba yegg ci maqam xatmiya foofay njëbaxtalu wilaaya coobare yàlla aju ci kenn dootu ni mel waaw ñëpp ci moom la ñoo jëlee waaw ah, moo tax mu ne wa kullu waliyin taxta aqdaami cheikhina fa in qila ayna xatmuhu qultu ahmadu wa saadaatu axwaathin li naclika azcanuu maratibu cuzma fi liwaayika ahmadu wa saadaatu axwaathin sangi xawsu yi azcanuu laxas nañ li naclika jëm ci sa suufu dàll waaw sangi xawsi yi ba ñu laxasee euh, seen bët fa gën a sori euh, fa mu séen pour àgg fa mooy sa suufu dàll waaye jot la moom xalaatuñu ko sa suufu dàll parce que yaay joxe maqaama yi te ñoom ñëpp ngi foofu maratibu maratibu ay martaba uzma ya gën a màgg fii liwaa ika ci sa drapeau la nekk Ahmadu yow Cheikh Tidiane yàlla bu ñu yàlla xañ ay maratiba ah maqaamaatu ashyaaxin furuucu usulina saxaaibu irfaanin hawaatilu Ahmad maqaamaatu ashyaaxin maqaamaay sëriñ si furuucu usulina ay banxaasi suñ cosaan yi la maqaamam sëriñ lu mu rëy rëy xamal ne banqaas la ci garabu wilaayatu gi Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu saxaa'ibu irfaanin niiri xam yàlla hawaatilu yey way bàppeeku di jóoru di taw taw bu réeréeréy wala taw yu réeréeréy niiri xam yàlla yooyu yëpp waaw niiri xam yàlla yëpp xamal ne euh, cosaan la nee na mooy Cheikh Tidiane radiallahu moo tax faxaarun azimun la yumathilu faxratan liman huwa maktumul xalaayiqi ahmadu faxaarun puugare azimun ju mag muy Cheikh Tidiane la yumathilu du yemoog faxratan puugare gu ndaw muy kulul Cheikh Tidiane ci wàllu li man ñeel koo xam ne huwa moom maktuumul xalaayiqi kuñ nëbbu mbindeef ila ahmadu Cheikh Sidi Ahmad Tijaan yonentu sallallahu alayhi wasallam daf ne ko yow yaay xutubul maktuum Cheikh Tijaan ne ko lan mooy xutubul maktuum mu ne ko mooy koo xam ne eh, yegg na ci maqaama yegg na ci daraja waaw foo xam ne la ko yàlla may nëbbu na ko kudul yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam waaw firiwul ne moo gën saxaaba firiwul ne moo gën yonent waaye maqaamaam la yàlla nëbbu daf ko nëbb ko nëbb mooy maqaamam ma mu jot ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar te Tijaan Baaba tudd ko ca Muniyatul Murid waaw gannaaw bu mu jotee alxatmiya ci muharram ca Arafa hmm? seetal loolu fukki fan ak ñaar ci muharram nga teg ci fukki fan ak ñett juróom-ñett muharram faatu muharram dee nga indi fukki fan ak juróom-ñett dégg nga ci safar mu jot kat xat mi fukki fan ak ñaar boo ca tegee fukki fan ak juróom-ñett weer wi dee fukki fan ak juróom-ñett boo ko ca tegaatee ca safar kat mi ñëw ñaari fukk ak juróom-ñett trente six la waaw maanaam weer ak juróom-benni fan wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al-aziizi al-muntaqa maqaamihi al-maktuumi an kulli al-wara siwa an-nabi maa waraahu wara qaddasallahu sirra sharaabun wa saqyun li cumuumi akaabirin mujaaju xabiibi taaha wallahi ahmadu sharaabun naan ak nandal wala sharaabun naan wa saqyun ak nandal li cumuumi akaabirin ñeel mbooleey way maggi eh, wilaayatu mujaaju xabibi taaxa mooy yalbitu soppeb yàlla bi mujaaju xabibi taaxa mooy yalbitu mu ne mujaaju xabibi taaxa mooy yalbitu soppeb sayidna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kii taaxa wallahi barke yàlla ahmadu cheikh sidi ahmad tijaan maanaam lépp lu waliyu di naan ci maqaama ci wilaaya lumoo lumu mu ne xamal ne Cheikh Tidiane na ko yabli jox yabli du Cheikh Tidiane la radiyallahu anhu aw fala wali illa min bahrina yusqa loolu la wax nee na amul benn waliyu lu dul ci suñ géej gi lañ koy wungee alayhi ridwanullah mu ne wa kunta waliyan bilfiaali muallaman wa adamu bayna almaai wa tini ahmad wa kunta yow dee Cheikh Tidiane nekkoon nga wa kunta yow dee Cheikh Tidiane nekk nga nekkoon nga nekk nga aha kaana kaana allahu kaana allahu uh, ala ma kaan hmm? kaana allahu wala shay wa huwa alaan ala ma kaan hmm. wa kunta waliyan bil fiaali wa kunta nekkoon nga waliyan di waliyu bil fiaali ci jëf bil fiaali en effet muallaman ngay kuñ xamal ne waliyu nga wa adama te booba suñ maam sayidna adama alayhi salaatu wassalaam bayna al maayi ñu ci diggante ndox wa tiin ak bana ahmadu yow Cheikh Tijaan nekk nga waliyu te xam ne waliyu nga te booba aadamaam suuf amagut waaw parce que mooy loolu Seydina Rasul sallallahu alayhi wa sallam fu yonantu di nabiyu rek Cheikh Tidiane nekk fa na fa waliyu wa ahmadu shamsu wa shuyuxu kawaakibun sa jënjëlu aqtaabina majida ahmadu wa ahmadu mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu shamsun jant la wa shuyuxu sëriñ sépp kawaakibun ay bëddéew lañu sa jënjëlu aqtaabin seetu aqtaab yi ama jide yey way tedd ahmadu Cheikh Tidiane waaw ah, ka shamsi tadharu naka la ko waxeeti moom imam Busiri fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnaasi fi dhulam ñi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy jantu ngëneel yeneen yonent yi yëpp di ay biddiwam xam nga biddiw amut leer jant am leer waaw bu jant bi roteytee nag guddi nekk ci suuf dégg leeram tappe ci biddiw yi biddiw yi euh, dégg nga di joxe leer ndeke leeru jant bee waaye bu ñëwaatee ci asamaan ci waxin dootoo gisati leeru benn biddiw moo tax leer gi nga gis ci awliyaawu yépp leeru Cheikh Tidiane waaw moo tax sa bi mooy seetu aqtaab bi ku ci bëgg xam noo mel seetu ba ngay xoolee naka nga toll mooy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane waaw mooy mooy mooy waaw radiallahu tabaraka wa mm-hmm. parce que mooy jant bi yow ngay béddi ko mm-hmm. wa ahmadu shamsun wa shuyuxu kawaakibun سجنجل أقطابنا ما شئت أحمد ku ne mën ngaa leer waaye bu jant accès dootoo gisati leeru biddiw moo tax ba mu accès dootoo gisati leeru gi ñëpp ci moom la ñu wëgg alayhi salaam duwaanullahi tabaraka wa taala sabaqta arrijala fi madamiri sunnatin wa bayyanta ashkala diyanati ahmadu sabaqta jaliyan fi maqami xilaafatin wa taxtimu barzaxan maratiba ahmad sabaqta yow de jiitu nga rijaala góor yàlla yi fi madaamiri sunnatin ci leefi sunna wa bayyanta nga leeral ashkaala diyaanaati way lënt yi nga xam ne lënt na ci diine yi leeral nga ko nit ñi ba xam ba ñu xam ne seen xel lënt waaye diine lëntut ahmad yow Cheikh Sidi Ahmad waaw looloy waaxim bu dee baatin sabaqta jaliyan jiitu nga ci lu leer naññi fi maqaami xilaafatin ci maqaamam wuuti yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ba nga tëj barzaxan ngay diggante maraati ba martaba ya ahmad yaa raw nit ñi ci zaahir yaa leen raw ci baatinu sharia waaw xam nga koo xam ne ba ngay ndaw nga mokkal buxaari muslim mokkal téere yi ñoo jàng fekk mag lañ nga mbokka leen bi ngay ndaw ah boo màggee nooy mel ba pare nag dajeeg yonentu sallallahu alayhi mu defal la lam la defal waaw ah. ci zaahir nit jiitu nga ndax yaa wuutu yonentu sallallahu alayhi wa sallam maraati bi yaa nekk ca njubbaxtanu wilaaya kenn du la ca fekk moo tax wa tax te mu nag mbir moom ngay barzax waxuma la yaa mottali waaye yaa dox ci diggante wilaayatoog nubuwatu nga xam ne lu jóge foofu war a dem ci wàllu yu yaay segg lu war a agsi agsi lu war ta agsi toog waaw wa taxtimu barzaxan barzax mooy diggante baynahuma barzaxun laa yabgiyaan waaw aalam bi nekk diggante aalamu dunia ak aalamu luxra ñuy tuddee barzax waaw am na ñuy tuddee barzax wal qutbul maktub wal barzaxul maxtum mu ne wa nisbatu xatmin fi wilayati fardina ka nisbati taaha fi nubuwati ahmadu wa nisbatu xatmin aska nekk xatmu gi fi wilayati fardina ci wilaya yi suñu fardu bii di Cheikh Tidiane ka nisbati taaha mi ngi mel ni aska nekk taaha fi nubuwati ci xatmu nubuwati ahmadu waaw ni nga xamee ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam maqaamam ci nubuwatu kenn fekku ko ca Cheikh Tidiane it doonte waliyu dana dikk gannaawam maqaamam ci wilaayatu kenn fekku ko ca ndax ni yonent di tëbbee ci nubuwatu noonu lay tëbbee ci wilaayatu moom la waxoon ne moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na ruuxuhu ruux yonentu sallallahu alayhi wa sallam tumiddul anbiyaa wal mursalin wa ruuxi tumiddul awliyaa wal xaarifi yàlla nañ ci yàlla boole loolu nag du lu ñuy def defle lu tax mu ne wa dalika ixbaarun bi qaatii xujjatin idil xatmu madunun min aljaddi ahmadu wa dalika loolu le nag ixbaarun xabaare la bi qaatii xujjatin ci aji dagg ci lay id ngir alxatmu xatmu gi madunun lu ñu ndigal la ma nga jógee min aljaddi lu ñu digalee la min aljaddi jógee ca maamam ju tedd ja sallallahu alayhi wa sallam mu xellan moom mu nekk ku ñu ràng ku ñu takkal bi xatmin ci xatmu gi min udulin tukkee ci way mandu ajillatin yooyu way màgg min al aarifina ci laale ñoom ay aarif lañu alkummali yooyu way mat alxurri yooyu way pell ahmadu cheikh mu xellan bi xatmin min udulin min al aarifina alkummali alxurri ahmadu maanaam lii du moo xëy wax ko dafa am ay aarif billahi tabaraka wa yoo xam ne jaar nañ fi am ci ñoom sax ñu xemme moon maqaama mi am ci ñoom ñu demoon sax ba gis ne yàgg nañ ca ñu xamal leen ne àggagu leen ca ñuy wër ba ñëpp ñu xamal leen ne kii mu war a doon mooy abul abbas moo dëkk faas moo tax waaw waaw Cheikh Tidiane faas sama waa jaamul maas du du du waxinu mbër de waaw du waxinu mbër mukk parce sëriñ du mbër waaye dafa di eh, xam eh, kanay kan dafa am solo waaw xam ki la yàlla boole dafa am solo xam ki la yàlla boole dafa am solo waaw ay aarif billah ñoo xam ne ñoo raw ci xeet wi ñoom ñépp ñoo wane ay lay yu leer nañ ñi ni diw ci xarnu fukk ak ñaar lay feeñ nangam lay tudd bërëb sangam lay dëkk dëkk nangam ak nangam lay mel lépp dajee ci Mawlana Tijaani ñi dajee ak moom xam ne moom la ñu nangul ko ñi ñëw gannaawam xam ne moom la ñu nangul ko moo tax mu ne wala wa dalika ixbaarun bi qaatii xujjatin إذ الختم مأذون من الجد أحمد محلا بختم من عدول أجلة من العارفين الكمل الغر أحمد kon nag وكيف تطاول الهضام wa kayfa tutaawilu lhidaabu hidaabu shawaamixan wa kayfa tutaawilu lhidaabu shawaamixan wa baxru lbuxuuri qutbun alxawsu ahmadu wa kayfa tutaawilu kawteef naka lay gétti hante alhidaabu doj yu ndaw yi shawaamixan montagne ya gën a yëkkatiku montagne yey way yëkkatiku wa baxrul buxuuri te géeju géeji xutbu naa mooy suñu xutbu bi alxawsu di sang bi di xaws bi xettali dégg nga jaamu yàlla yi ci ndigalu yàlla ahmadu cheikh sid ahmad tijaani waaw maanaa naka la yeneen lawliyaaw yi di suttante maqaama ak cheikh sid ahmad tijaani te seen maqaama jógee ci moom hmm? naka la e, dex yi ak géej yu ndaw yi di gën a bari lante ndox ak géej gi nga xam ne ci ñoom ci moom lañu ñu jëlee ndox mënul nekk mënul nekk mënul nekk ndax mooy seen xutb maanaam mooy xutbul aqtaab mooy lim ñee indil nag ñu mën caa jaaree dégg nga yegg ci suñ borom te loolu rek lañ soxla lay tudd si mu ne waawraadu cheikhina xibaalum matinatun fa qul lil muridina al wasilatu ahmadu waawraadu cheikhina wirdaay suñ sëriñ xibaalun ay buum lañ matinatun yoy way dëgër fa qul waxal kon lil muridina ñi nga xam ne dañoo nam ma yegg ci yàlla ne al wasilatu jaaruwaay pour yegg ci yàlla ahmadu ma cheikh tijaan ku bëgg yegg ci yàlla sëriñ baat waaw jëlal wirdaam wi rek léegi tey mu ne la yàllaa ngi yaa ngi te loolu rek nga soxla loolu rek nga soxla waaw qulillah thumma darhum fi xawdi bil waaw xëyal rek wérde suba waaw astaghfirullah la salat al fatih lima ughliq la ilaha illa allah ngoon noonu wadifa noonu zikru jumaati noonu rek rek te nga bàyyee ko sa tarbiya waaw comme nag mooy wasilatu bi man li ma bëgg mooy mu ne ci sama xol ba faw amit ni bi xubbihi malika bariyati wa habli muradi fi cheikhi ahmad amit nii yàlla nag ma rey man alhaaji Omar amit nii yàlla nag ma rey man Mouhamed Muntaqa Sakho amit nii yàlla nag ma rey man miy déglu xasida ji ñuy firi bi xubbihi ci bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tijani yow sama borom yàlla nga ma ree ci bëgg Cheikh malika bariyatin yow mi nga xam ne yaa moom yaay buuru mbindeef yi wahab li te yàlla nga ma may muraadi sama namu namu fii ci moom xaw lu rëy la wahab li yàlla nga ma may muraadi sama namu namu fii ci Cheikh Tidiane cheikh ya ahmadu yàlla ñu ko yàlla boole defal mu ne madaihu xatmin jazibatun li sadiqin li nuurin wa fatxin wa maarifa ahmadu ndeysaan maa ngi amoon góor goo xam ne dund na téeméeri at ak sulaf di suñu baay di suñu soppe di suñu kilifa di suñu lépp di Mawlana Cheikh Alhaaji Abdou Salam Guèye dafa am benn conférence bu ma fédération Tijane bu Amérique doon defloo ma woo ko di waxtaan ak moom ne ko na ma ñaanal ndax dañ ma waxtaanloo ci Cheikh Tijane bayt bii la ma jàngal madaaxu xatmin jaalibatun li sadiq li nuurin wa fatxin wa mahari wa ah, la mu wax ma it la loxo mu ñaanal seetal seetal seetal loolu waaw góor gu bëri woon yàlla yàlla ñu ko yàlla soppoon ma ma sopp yàlla ñu yàlla soppal boppam nee na ma daa yow xatmit tagg tagg yi ñuy tagg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane tagg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jaazibaatun way ñoddi lañ li saadiqi ñeel murit boo xam ne aji dëggu la waaw tagg yi ñuy tagg Cheikh Tidiane dafa ñuy jazbu li nuurin jëmee ñi ci leer wa fatxin ak ci fatxu wa maarif ak ci maarif ahmadu Cheikh Tidiane boo bëggee leeru yàlla del tagg Cheikh Tidiane boo bëggee ouverture dégg nga fatxu dégg nga qariban wa fatxan mubinan wa fatxan dégg nga kaamilan daiman del tagg Cheikh Tidiane wa maarifa boo bëggee ñamu xam yàlla gannaaw boo sa ndabu xol ubbeekoo del tagg Cheikh Tidiane madaa'ihu xatmin jaazibatun li sadiqin li nuurin wa fatxin wa maarifa ahmadu radiyallahu tabaraka wa taala صلاة وتسليم على أصل خلقه مرتب أوراد حبيبي أحمد وآل وأصحاب كرام ضياغم كرام ضياغم وأشراف أولاد بهم عد أحمد صلاة jullig yàlla wa taslimun ak jàmmalam ala asli xalqihi yàlla nekk ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam miy cosaanu mbindeefam yi yonent bi nga xam ne murattibu awraadin huwa murattibu awraadin wala mara murattibi awraadin mooy naat wala awraadin moom mooy aji toftale aji ranger aji tegale aji dégg nga euh, fonde aji joxe wirde yi nga xam ne ñoom la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu joxe murattibu awraadin yi nga xam ne mooy aji toftale ay wirde Habibiya sama soppe bi waaw ah, ki nga xam ne moo moo moo taftaleel wirde yi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Ahmedu maanaam wirde bi ngay wirde suba ak ngoon wazifa bi zikrul jumaati bi Cheikh Tidiane defu ci dër yonentoo ko waxee niñ ko wax niñ koy de mu wax ñu ko jaan te loolu lu jaayis la danañ ci dikk lu jaayis la gis yonent bi mu wax ak yow day te dañ cey sukkandiku ndax la mu wax ak moom yëpp ci sharia la tege astahfirullah ci sharia mu ngi alquran yonent bi ko salaatul ala nabi noonu laa ilaha illallah noonu waaw waxtu wa mujj ci àjjuma noonu te nag asirru fil adadi waaw mbootan ci lim de moo tax yow miy def salaatul fatihi loo mën yow miy def astahfirullah loo mën yow nangam demal jëli de ndax mbootan ci lim soo defee lim bi ba noppi nag loo mën ci salaatul faatiha continue loo mën ci alxuraan continue ndax taaliba tijaan nag du xëy te jàngul alxuraan ñaari xisib lum tuuti tuuti waaw waalin salaatu ak salaamu yàlla nekk ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabin yàlla nekk ci ay saxaabaam kiraamin yey way tedd dayaaximin yey gaynde wa ashraafi awlaadin ak way teddi doom way teddi doom yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne biim ci ñoom udda limeef na ca ahmadu sama sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu ndax boo toppee ay maamam ña nga jëm ca Muhammad bin nafsi zakiya bin alxasan almuhanna bin alxasan asibt bin fatima zahra bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hada wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu